ne ki nga xam ne deux ans la am xaw ma trois ans xam nga jàpp say ñetti doom pour man rangale leen war leen a rey ñoom ñetti ñëpp pour man loolu yaram mënu koo nangu quoi est-ce que comprendre bu ko dégg rek day nekk lu metti ci yow na boo amee doom waaw dafa nekk lu doy waar loo xamante ni war nañ ko xoolaat tamit mais dëkk bee jaxasoo àdduna bee tukki saa yoo xëy da ngay dégg lu gën a garaaw loolu noonu waaw kon gars ñoo war di delloowaat seen xel ci yàlla xale jigéen ñi xool ni ñuy doxalee parce que àdduna dara amu fi solo ay xaalis ak lu mu ci mënti doon nettali lay mujjee loo fi mën a am lu mënti doon ak loo fi mën a doon boo nelawee rek da koy fàtte boo deewee ñàkk nga lool noonu kon nay rafet àdduna bi jeex na lu bon rek nga fiy dégg Sénégal mënatoo xëy te doo dégg lu bon muy fépp nag foo xëy ci àdduna bi rek saa yoo xëyee rek noo def dégg lu bon est-ce que comprendre te loolu noonu nekkul lu rafet fii ci réew mi fii Sénégal du dëkk tubaab du dëkku chrétien dëkku ay jullit ñoo fi est-ce que du léegi dañu bëgg a roy ba dàq comme tubaab yi bu ñu meree di xaru du rey ay nit est-ce que du loolu moo commencé bëgg am Sénégal. même roy ba dàq bi sax du parce que léegi am na corona Sénégal ñu koy g à visibilité xale yi di ko gis mag ñi di ko gis ñëpp di ko gis ñu koy teg ci télé yi nit ñi di ko seetaan pourtant état Sénégal mun na xeex loolu noonu ki jiite dëkk bi jullit la. mais xalaatuñ loolu noonu ñoom ñoo ngi xalaat luñ jekkalee seen bopp ak seen i ñoñ ku nekk di xëccu pour sa bopp est ce que comprendre loolu noonu taxul ñu ñëw fi. mais waa ji ak ni histoire bi tëddee mere jabar ji moo tax mu def loolu est ce que yow en tant que góor euh, bu doon yow a di nga def loolu ak ndax waru mën a am beneen solution bu dul li mu def. waaw mënoon na am beneen solution loolu moom mais ku nekk ak maanaam li nga mën a muñ est ce que comprendre parce que neexul ku la wax fekkul ak jabaram ak góor. est-ce que comprendre sax yii yëpp man ragaluma li may wax ah je suis jeune je suis am naa samay droit tamit am naa aussi droit pour wax mais ni muy doxalee moom si boppam moo tax Sénégal jaxasoo te ci tàkk la jëm buñ delluwul ginnaaw ñoom politiciens yi parce que li ñuy def dafa ñaaw ñoom ñëpp dëkk bi tas na jaxasoo na kenn lu toog ak sa fit bu dal kenn toogatul ak sa fit bu dal fii Sénégal foo toog da ngay tiit du ruq du nekk amul pour yow foo toog rek maanaam dara mën na la faa fekk muy jee am na loo xam ne rafetul est-ce comprendre am na yoo xamante ne rafetul fii si suñu réew waaw ñëpp war a am jàmm ñëpp nekk si jàmm est-ce comprendre mais ñoo xamante ni ñëw nañ si réew mi bëgg koo yàq kenn du wax kenn du ñaxtu kenn du marche kenn du wax say droit jeunes yëpp ngi sommet saa yoo xëyee agression di gën a yokku xale yi ndaw yi di gën a nekk ay bandi loolu lépp li ko waral mooy lan gouvernement boo xamante ni dafa salte dafa bon li ñuy dund rafetul est-ce comprendre looloo tax jeunes yi dañuy dem ba ci biir dañuy mujj siisu parce que dañ naan suñu réew teguñu ñu fenn waaw boo demoon sax Afrique du Sud jeunes yu foofu ñi nga xam ne liggéeyuñ sax amaana sax weer bu dee ñoom dinañ am dara luñ def seen poche quoi mais fii Sénégal da ngay dégg ay multimilliardaire boo waxee ñu ni Sénégal amul xaalis. kon daal ni que problème yi ñuy dund euh, ci côté société bi moo waral peut-être li lu mel nii di am. waaw moo waral lu mel nii di am parce que boo nekkee si réew sa xel dal. Hmm? mu leer na yow yu bëri yow tey jii boo duggoon pour dox ko danga nga ciy am opportunité mais tey ji boo duggoon sax yow pour dox benn kayit yow mii nii hmm? amoo baran wala amoo ku la jàppale. Hmm? woy yow rang bi da ngay nekk cinquième position parce que doole moo fi mën dëgg ko alal moo fi mën dëgg mais dëgg mooy mucc lépp lu la sa alal alal may ba nga gañe ndax man la su mbaay sa alal bis dina ñëw ñu boole la yow yaag sa alal ak ña nga àndaloon ba mu jekk te gis nga booy dem kenn du la gunge yow rek ay ànd ku la gunge ku mënta doon day dëpp ndax gunge yegg da caa baaxut comprendre loolu noonu yëpp nag état boo xamante ni doxaluñu yoon. ñu ngi lay jaajëfal. waaw noonu la demee président Macky saal na jéem a xoolaat mu defaraat waaw ñoo ko mere ñu nekkul Sénégal sax ñi ko mere ñoo bëri te président bul nangu loolu noonu ci sa population parce que buñ jugee rek day ëpp doole. waaw bu nangu lool ci population na xoolaat na defaraat xam ne ay rakkam ñoo fi ne ay yaayam ay kii Macky Sall xanaa amul yaay xanaa amul papa xanaa amul ay rakk moom xanaa amul xool di xalaat. pourtant avant mu fiy falu ay vidéo am ñëpp yor nañ ko lu ne wax na ko fi fexe ba jële fi Ablaye Wade te pourtant Ablaye Wade amul président bu fi jaar ci Sénégal ba gën ko ba keroog àdduna yàlla di ko leb li mu fi def min def dootu ko fi def. waaw ñu ngi leen di sant di leen. nuyu tur bi naka la. man la Cheikh Mané. naka nga jàngate li am démb Sacré-Cœur ki faat ñetti doomam yi ba noppi moom xaru. waaw mais di ko ñaawlu rek di ko ñaawlu bu baax a baax a baax te xam naa ne àdduna lu ko lu ko soxna si man di def gisuma lu ko jar lu tax nga de ngay rey say doom. ndax àdduna jàpp naa ne kenn dong nga bëgg mu kenn dong nga bëgg mu gën la ci àdduna muy say doom mënoo am ku la ko bëgg mu gën la ci àdduna kuñ ne la moo la gën ko du doom nga mer te jàpp naa ne lu ko soxna si man di def mënoon na fee bàyyi doomam mu di leen ko xoole ndax tey ji euh, tey ji bu bàyyoon doom moom moom mu xaru ëllëg gi si bi dina dem ba mujj naqar yu mu bëggoon moom mën naa mën naa répété wu ci ci soxna si parce que mën naa mën naa jàpp ne doom yi da buñ ne seen papa dafa xaru même bu leen ko seen yaay waxu dina dem ba mbedd mi xamal ko ne ko seen yaay moo doon dund ak seen papa lu metti ba mu tax mu xaru mais moom rey gi mu rey ñetti xale yi moom erreur gënu koo rëy te man démb dama koo xool sama rongañ tuur parce que damaa jàpp ne ah, père de famille laa doom dafa neex ci xol doom dafa neex ci xol te jàpp naa ne lu ko soxna si man di defit li mu def moom amul lu ko gën a rëy ci àdduna yu mag yu mag yu mag yu mag te te te góor ñi tamit ak jigéen ñi nañuy génnee seeni problème ci seen i doom problème yu ñu mën di am nañ koy gérer seen bopp te di ci génne parce que booy ay innocent lañ am na yoo xamante ni kenn du leen jéem a euh, euh, ni ñu ko waxatee waaw di xeex xale yi xale yi ay innocent la seen yoon néew ji parce que tey jii ñoom buñ ku xamoon fooy juddoo da ngay taamu da ngay da ngay taamu fa la gënal fa nga xamante ni say parents dañuy euh, ci condition yu baax ci condition yu normal yoo duñ xuloo duñ xeex ñu ñu ñu di bàyyi xel nañuy bàyyi xel xale yi. xale xamul dara tey jii xale yee ñu lor fi ne nii lan mooy seen problème seen yoon néew ci coow coow fekke ñu yëguñu te te te te xale dafa bëgg waajuram boo xëyee nii man li ma ci gën a metti mooy imagine bi ma ci njëkk a imaginer wu mooy bi mu ne leen kaay leen mu pikir leen da leen di jàpp ne ñoom dañuy jàpp seen papa seen wér gi yaram la leen di wutal imaginer loolu soxna si xoolal loolu ni mu méttee nga ne samay say doom kaay ma pikir leen ñoom ñoom ñoom ñu daw ñëw ci sa kanam léegi yow nga pikir leen pour rey leen loolu soo metti na trop barke Serigne Touba Mbacke metti na ba fi metti yam mais yàlla yàlla nañu yàlla may xolum muñ waaye lu ko soxla si man def moom yàlla na ko suñ borom la wan lu ko raw barke Serigne Touba Mbacke yàlla na ko yàlla wan lu ko raw ca yemal am ndax li mu def dafa metti metti na ci doomu aadama yëpp kuy père dafa mi wala ngay mère de famille boo ko déggee sa xol du neex. waaw loolu dong lañ jamono lañ ci doon sànni. en tant que góor yow ñaanaluñu la ko mais li ko dal tey jii boo demoon ba nekk ci situation boobu ndaka ngay réagir. man su ma demoon ba nekk ci situation bu daf may jaral ma bala nga dem ma dem seeti keneen jamono bi xaw ma lu jafe lu dul jigéen fi ne nii jamono bi ñu toll nii ñàkk def ci dara la ñuy wax mais soo jàppee ci dara pour pour koo nekkal du la du la jafe jamono bi ñu toll nii xaw ma lu jafe lu xanaa nga ñàkk liggéey soo liggéey noonu lu lépp dara la jafe. mais sooy liggéey di xëy di wàcc di am looy di am looy suturloo foo bëgg foo loo bëgg di ko am man su ma demee ban ba ñaanu ma yàlla toll situation mais su ma demee bàgg fa dama lay nga dem jaral na ma sax ma gàddaay génn dem feneen mais du ma la rey du ma ci xuloo du ma parce que tamit man naa ne sama liberté nga ne sa du ma la rey du ma la su man man du jigéen sax du ma la du ma xuloo du ma xeex soo ma defee lu ma met damay génn dem sama yoon ñuy commencé di dund Sénégal actuellement est-ce que du ko dañu commencé di seetaan yenn film yi gis nu muy demee comme am lu la metti ak sa jabar xaru rey say doom ak loolu est-ce que du loolu la commencé di dund Sénégal. waaw mais waaw mais waaw mais film yu bees yi c'est des parce que ñoom ñoom ñu koy dund ñoom ñu koy joué tey jii confort bi ñu leen di confort bi ñu leen di dundal ñoom dunduñu ko seen i ñoom ñu koy ñoom ñu koy ñoom ñu koy kii nii ñoom ñu koy joué li lay xamal ne boo xoolee bu njëkk da nga daan seetaan ay daaray kocc mu leer na dañuy dem ci benn village bi benn cheikh benn cheikh maane jóge ci village bi ñëw di liggéey si di ñafe di ñafe di ñafe di ñafe di ñafe ba am dara léegi lim am noonu cheikh maane da koo liggéey jekki-jekki nga ne vieux am na xaalis ana vieux mi ngi dawal benn oto mu ngi dawal range mi ngi dawal 4x4 te vieux mënoo xam fu mu fu mu jëlee xaalisam wala sa wala vieux parents yi ci ci film bi dañoo am xaalis léegi anamu mais ñun suñu société ñun ñëpp xam nañu li li daw li daw ni ci film yi dund wuñ ko lii lépp dund ñu ko. léegi lan mooy solution pour cas yu mel nii. non cas yu mel nii mooy film yi xoola Sénégal mu di ci jël ay décision yu mat sëkk ñuy wane réalité yi réalité yi ñuy dund gis nga américains yi seen ñoom duñu wane ay fausses images de ñoom li ñuy dund la ñuy dund dañuy dem ci seen ghetto bi ci ci fi africains yi dëkk di dund di wane seen i film ñoom mais ñun dañuy bëgg di wane boo xoolee xam nga boo xoolee film ñag yi. da ngay gis ña nga dañuy solu seen seen cosaan dina ci àll bi di bàyyi ngay seen la ñuy def te xoola am na donte ko sax am na yoon dunduñu loolu mais ñun duñ ko def dañuy ñun luxe rek film boo xam ne luxe luxe luxe luxe te Sénégal presque yàlla ma yàlla jigal mais ñi fi dund luxe bariwul mais am na am na yenn kii yoo xamante ni nañ ko seetaat quoi. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëfal bi ñu ngi lay nuyu tur bi ndaka la. Dawala. Dabala yaakaar naa ne actualité bi mu di information bi nga xam ne ñëpp jot nañ ci ki rey ñetti doomam yi Sacré-Cœur ba noppi rey boppam jot nga ci. waaw tey la la la la journal bi journal bi laa ko déggee quoi mais yëgu ma woon na quoi journal laa journal bi la la taal mais avant may xëy laa xool bi sànni bi huit bi gis ko ci quoi. naka jàngatee loolu kii joteeg jabaram ray ay doomam rey boppam. waaw a ah ni ma ko jàngatee comme ni ko Sénégalais yëpp jàngatee ah. pour man li ñu jotee nag ñoom ñoom ñaar ñoo ko xam quoi xamul lu ñu mën ma jotee ba tax mu ray doom mu ray boppam mais man sama bu gàtt yaakaar naa tax mu ray boppam mu ray doom ba ray boppam parce que après day xam lu ko ciy fekk comprendre nga moo tax mu ray boppam ba ray ay doom mais li mu jotee ak jabaram nag moom ñoom ñaar ñoo xam ak yàlla suñu borom waaw. mais ak loo mënti jotee ak sa jabar est-ce que jot na ngay euh, jar na ngay xale yi nga xam ne ay innocent lañ ci. loolu moom c'est pas normal du yoon moom mais peut-être li ko poussé mu def noonu nag moom comme moom faatu na loo xam ah réellement li tax mu def loolu parce que suñu aada ñun Sénégal dañoo gëm benn affaire gëm mooy maanaam peut-être tey bu fekkoon deewul sax man dañ koo dañ koo xabtal wala li ko ko jabar jox moo ko métti wala quelque. comprendre mu daal parce que ñu suñu aada mooy lu ñu def rek dañuy njëkk jiital yàlla pare doo indi parce que boo nee yàlla moo ko moo ko bëggee woon noonu wala suñu borom moo ko namee woon noonu ci ñoom rek après doon loo ciy teg mais nag du ñàkk nag ay commentaire am peut-être ko def loo xamul tax mu def ko ñoo xam ne sax dañuy dem ba wutal la sax ak këyit këyit këyit yoo xam ne këyit dof la parce que dañu xam après la ciy fekk parce que trois personnes nga rek. loolu dégg naa ko dégg naa ni bind na benn lettre pour bàyyi ko fi mais parce que man boobu may may déglu information waa ci démb la ñu ko njëkk a wax ne ma daa am ko rey xaw ma fan rey ñetti doomam affaire yooyu mais dégg naa ñu bind benn lettre bu bàyyi ko mais daal en fond daal di ko parce que waa ji bu nuyu bu fekkoon mi ngi dund moom man ngaa war ngaa mën a di nga xam lan moo tax mu def lii mais comme dundul waaw moom laa expliqué wax naa la ko ci biir naa doom nu mu neexee ci xol réew benn réew ñaar ñett nga rey ñett tamit li ma la wax léegi nee naa la peut-être mën na mën na def ni su bàyyee jabar ji jabar ji dina féete ak doomam léegi nag bëggul gis benn moo moo bu rey boppam tamit day perte léegi mu ne damay rey damay rey booy yi ba rey sama bopp léegi dootul gis leen dara tax ci man après moom li mu bëgg a dund mu dund ko parce que man Papa nag Papa nag Papa nag def loo xamante ni nag soxna si mu la nëbb de mais da ngay bëgg a bàyyi bàyyi àdduna rek quoi mais après da ngay delloo sa xel ci yàlla xam ne ni dara jaru ko ba ci métier mi ñu nekk ni yaa ngi kër kër kër kër kër xamoo kañ lay doon mais li tax mu def li tax mu def loolu moom moom ku la wax ni lii la. dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy pronostiquer dañuy wax rek ku nekk rek ak sa version quoi. waaw. ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. merci beaucoup ngi lay fay yaay booy. tur bi naka la. Talla. Euh, ndax nga jàngatee ki ki ki rey ñetti doomam ba pare xaru Sacré Cœur. ki rey ñetti doomam pare xaru. ah loolu doy na waar de doy na waar moom si déggin bi cinquante dollars ñi nga fekke doy na waar mais ki rey ñetti doomam pare xaru ngir lan xuloo jamaram léegi la nga jot a jabar ji moom ak lan la ko jabar ji def ba tax mu jaral ko rey ñetti doomam ba bari xaru. mais ak lu la sa jabar mën a def ak xale yi nga xam ne ay innocent lañu ndax jar na leen a rey ñoom. non xale moom moomu la xamul dara bañ na ba ne xale xale moomu la xamul dara ak lu mu mën a jotee lu mu mën a jot jabar war koo rey mais tamit lu ko jabar ji def ba jar muy xaru ba tamit jar naa xalaat de. xëy na ñu nooy góor lan quoi doon gis ay tooñ mais tamit des fois jigéen ñi day doy waar de xam naa li ko sëy dafa sëy dafa doy waar quoi xam nga xulal sa jabar day waaj divorcé rey say doom yoo xam si yaa leen leen xaru dara ñu saytuwaat affaire bi nan la ko jabar ji def ba tax muy xaru mais ñëpp tool mooy comme ça li mu rey jabar li mais li jabar ji def ba tax muy xaru kenn du ko gis te doom dafa foor doom foor na trop foor lool ci xol pare neex daa ngay gis benn xale bu ndaw dafay dox muy am doom mais lu tax mu rey ay doomam ah la ko jabar ji def ba tax mu rey ay doomam est loolu yéen su ji def. yow bu doon yow ak loolu jabar mën na def est-ce que di nga rey say doom. xam nga ñëpp bokkuñu yem ñëpp bokkuñu yem yàlla daf bind yemalewul na man li mën a ma mën a maîtriser samay doom mën bañ a lii ak lu ko jabar di def. ah tey loolu mën na ko bañ jàpp mën na ko naqari trop nga tax na tey fu xaroo wàcc fi jabar wàcc fi doom yi seen ginnaawam dina dina demee neneen wala xëy na mu gis benn comportement boo xam si jabar yi sax si doom yi ñëw ko moo war a mu def loolu rek mais métti na trop métti na trop moom. dëgg fa na yàlla métti na trop métti na si déggin bi am si gis métti na lool mais tamit li jabar ji def ba tax mu rey boppam rey doomam jar naa laajaat. ñu jërëjëf sëñ maa ngi leen di fay sëñ Modou laa tudd. naka nga jàngatee xibaar bi kii rey ñetti doomam rey boppam parce que dafa jotee ak jabaram. ah loolu de dëgg la. ak lan moo war a mën a tax ban problème moo war a mën a pose loolu quoi parce que tamit nit xanaa du xëy un jour rek am métti xol tax mu rey nit soit que muy rey ay doomam. xam nga àdduna tamit loo gis am na lu ko waral bu fekkee que ne maam dafa am lu ko waral tamit ñu ne ñu lii moo ko waral waa ñu mën a xam mais man personnel sama sama xalaatu bopp problème mu àdduna warul mën a tax nit di xaru warul mën a tax tamit aussi nit di rey ay doomam parce que bu dul dara sax jullit loolu yàlla daf ko ko tere amul benn religion bi nga xamante ne daganal na xaru waxuma la na ngay egg ci di rey nit loolu ñaawul nañ ko ba ñaaw yam tamit aussi parce que loolu nekkul loo xamante ne yëpp nit la daal ci li ma gis man ah bien sûr parce que tamit euh, nit moom euh, jabar ju bon nattu la xam nga jabar ju baax moom chance la te benn mag daf may faral di wax ne génération bi amuñu chance parce que jigéen ñi léegi sëyatuñu léegi nag li la jigéen ñiy def li la metti warul mën a tax ngay xaru parce que néegu sëy neexul ku ci nekk yaa gis lu la metti yaa gis lu la neex tamit aussi mais bu fekkee lu la ci metti nga bëgg ko fajee mer loo fajee mer tamit day mujjee soppali ko gaynde sa kaw waaw beneen instant moom warul woon def loolu quoi warul woon rey ay doomam parce que dafa mer wala dara parce que problème boo gis rek am na solution problème bu amul solution amul ci àdduna loolu moom franchement du acte bu rafet te it du jëfin bu rafet. no bu doon man a moom wax dëgg fa yàlla ki nga xamante ne dem na ba teg ma stress àdduna xaañ ma sama jàmm dama koy libéré mu dem dund dundam man ma continuer dund samay dund topp soo samay doom ëllëg leneen mën na ñëw lu ëpp loolu quoi mën na ma dajeeg ëllëg jigéen bu baax xam nga.